kii nii benn waay la boo xam ne mhm. duma la wax lu muy liggéey mhm. parce que moom bëgg ko te am na loo xamante ne ji boo ko defee da ngay sàggib sàkk même pas moom mais ñi bokk ci loolu muy liggéey ñoo bokk ca corporation mais moom daal liggéey na ba wàcc mhm. arrêté benn taxi waaw wax ko fi mu jëm ñu waxaale mu dugg mu ne taximan bi boo rombee foofu noonu may ma ma jënd ndox ak cigarette taximan bi ne ko non yor naa ndox genn benn bitel kirem moom noonu la ko waxee noonu laa koy waxee. Mhm. jox ko mu naan. waa ji naan delloo ko ne ko merci mais gis nga bi mu tegee bitel bi ci la noppee xew lu xew ci xew lu xew ci jamono. xam li xew ci jamono. exactement. Mhm. nee na moom daal dafa yeewu yeewoo ci kër boo xam ne benn néeg la ñetti jigéen tiim ko. jël téléphone bi composé ci 17 jël bi composé ci 18 ne ko ñaara mën a am nga defante kook ñun baa ñu wootee ndax ñu doon violé parce que suñu kër nga nekk. Hmm. ñetti fan waa ji nekk ci xale yu jigéen yi. na fi muy dox di ñëw fii daf doon jàppandu. Hmm? déglu ko. nga ñëwoon seet ci lan mooy sa problème lan moo la arrivé. waaw ah, dama sëñ man de dama jóge ay booru 18 ma jógee foofu di jël taxi pour ñibbi si dem sama kër xool sama waajur léegi ba ma ñëwee dugg si taxi bi taxi man bi waxaale nañ ba juboo ma dugg toog si gannaaw oto bi ba may dugg nag yoroon naa sama téléphone ak 63 000 francs léegi ñu dem départ ba si kanam ma ne ko même moo jënd ndox mu ne ma eh, xam naa ndox si biir oto xaar ma meelal mu jox ma benn bouteille kireen bu ndaw demi kireen ba ma naanee buteelu kireen nag si laa gëj sànq sama bopp ba ba may yeewu ñetti jigéen ñoo ma tiim ñetti femme ñetti femme yu am yaram ñoo ma tiim ñoo nag boo sëyul ak man boo sëyul ak ñun dañuy yuuxu au viol xam naa ni ak situation bi mu demee ak fi ma fekk loolu koo dem ne defuma ko duñ la gëm ñoom bu ñu xottoon suñu yére saa wax sax dinañ di parce que man du ma am dëgg mukk maa ñëw bi seen kër tey bañ demee nag ma sëy ak ñoom nit ñi ma seeg ñoom seeg ñoom journée boobu yëpp maa ñoom ñoo nekkoon foofu mais ba ma seeg ñoom ba pare ba ay ba ma a sonn ma ne leen dama ñu bàyyi ma ma nopp ma nelaw yeew fekk nekk fa nekk fa ba ay fajar gi ba ma tëddee nelaw tamit fajar gi ay quatre heures du matin ba a nekk juróom sama kanam juróom ñoom ñoom ñoo nekk ba lëndi lëndi gi la ñaar ñi delu ci siwaat ñaar ñooñu kenn ki moom jàpp naa turam soo bëggee tam mën naa wax turam rama la tudd kenn ki rama la tudd parce que kenn fan bi ba muy ñëw di fëgg da ko wax rama ubbil ma maa ngi dégg mu ko naan rama ubbil ma si la ko ubbilee ñu dugg ñoom ñaar ba ñu nekk fa mag ñoom nekk fa dimanche bi toute la journée durant toute la journée ba xaaj guddi ba ma sonnee man leen bàyyi ma noppaliku après ñoom ñoom même nit yi mag ñoom ñoo nekk lundi bi en plus on est resté le lundi encore jusqu'à pareille heure ba ma sonn dem nañ ñaan ne leen ngir yi bàyyi la ma ma noppaliku ñu bàyyi ma après ñu jox ma ma lekk nag man leen dem dama xib man la waaye ñu jox ma ma lekk ba ma lekkee nag si laa gëj yeewu tamit lekk yooyu ña ma naan ci oto bi si laa gëj yeewu ak lekk ba ma lekkee tamit si laa gëj yeewu ba ay 4 heures du matin 4 heures 5 ba may dugg si ba may dugg si ñu kër ñu ngi noonu fajar ba ma yeewu maa ngi seen ya kasi ang ganaw pilidubi tali bigin sila gis pilidubi sa mga ma arte taxi mo halag mo miyog mo sa magkar sa mga jawad gin na fair taxi man yang mesin sa magkar te sa maliga ay tamit ang nalawak na tali may turo mo ko absence no justifier nyo na nyo kayo justifier o te ang nalawak na bukos ad na biyagay sa na ayako Tuwa tumajar yàlla xam na ne bañ ku ñu defaat niñ ma def nii bañ ku leen ko def ñeneen moo tax ma ñëw fii taxaw di ko te su ma sañoon moom lii ngeen jàllale ko ndax dëkk bi garaaw na garaaw na. léegi yow ci gàttal ñaata femme nga nga seexal. ñoom ñett juróom lañ mais ñaar ñi ñoom ñooy ëpp ñu fee nekk ñaar ñi laa ëpp ñu fee nekkal ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñëpp au ñoom ñëpp juróom lañ parce que mosuñu changé kanam ñoom juróom ñooñu mosuñu changé kanam. ay mag lañu wala ay xale tey boo leen doon jox age à peu près ñaata la.

instant yi fi ma toll damaa yeewu bi ma jógee sama kër ba ma yeewoo direct fii laa def xalaatuma dem fenn instant yi fii laa def directement parce que bañ bañ defaat ko keneen tey ci journée bi moo tax ma ñëw fi directement. ok nee nga mën nañu juróomi femme tey buñ la waxoon nga ko maanaam nga comptabiliser nombre de fois yi nga ko def foofu noonu ci journée boobu ci ñoom juróom yëpp ndax di nga benn idée ci ñaata yoon la. ëpp na cent fois de li ma defal ñoom foofu soble sans faari moom jege na ko. sans waay mais bëri na de. sama tànk yaa ngi nii mënul ma sax dox dox sax mënu ma ko damay escalier damay jàppandu ba yéeg maa jàppandu ba yéeg ba ci kaw. te xamoo fan la exactement amoo benn idée ci ban zone la ban localité xamoo ci dara. non foofu kañ seen kër gi moom nu mu mel ni ñu ko tabaxee maa ngi doon jéem a xool ci biti mais amuñu fenêtre bi gën ci mbedd bi ñun seen fenêtre yi ci biir kër gi la joxe te ci biir kër gi boo xoolee tamit da ngay gis ne bu yaatu la. néeg bi dafa am toilette ci biir néeg bu ngande la am toilette ci biir am na couloir bi nag boo xoolee seen couloir dina yaatu di nga xam ne fii du cité yu ndaw yi boo xoolee foofu moom bu baax di xam ne fii du cité yu ndaw kër yi ndawul. Euh, olof lañ doon làkk wala français wala beneen làkk. olof ñëpp olof lañ doon làkk kay ñëpp ñoom juróom ñëpp olof lañ doon làkk. apparemment di gàttu ci beneen tur. non non daan ñoo nox seen tur kooku moom xam naa rek rëcc la rek ñu sax wax ñun wax ju bari yow wóoru ak yow filmé nañ la pour après def image pornographique yooyu wala loolu seetlu woo non non loolu moom seetlu ma ko fa yàlla en tout cas daal bañ may njëkk ba may premier jour ba ma ñëwee biñ may menacé kenn ki dafa téewoon téléphone woon ma composé 18 ak 17 yëpp jël ñaar téléphone rek def 18 def 17 ma sa police nga am problème nag loolu ma wax ni jël ñaar téléphone yëpp téye dama numéro ci may ñaar ñoo fekk la fi jël la te ñun ñoo leen njëkk génn ci biti léegi taximan bi la jox ndox mi moom euh, moo la drogué après nga mandi di nelaw mu jël la yóbbu ci booy yooyu kooku kañ moom kooku yàlla na ko sama ak dal taximan boobu li ma yaakaar yàlla na ko sama ak dal sama jabar xamu ko sama yaay xamu ko sama mbokk xamuñu ko sama xarit xamuñu ko kam bëgguma sama der baa man man li may sàmm mooy sama der ak sama deru jabar loolu laay njëkk sàmm réew de wóorutul. dana war de. lii ille, sonna na de. c'est ni ko gis xam ne sonn na. kon dafa jóge ci yow war dem hôpital. dafa rek ñew dégg nga man bi mi docteur da doon te suma la waxone manam ci lan lay liggéey. waaw waaw lolou du bax wala nga xam li tax ñu changer voix bi. waaw da fay ragal sax liggéeyam yàqu amna na yo yoo xam ne buñ ci duggé ñu bari dañuy xam. comprendre waaw mais mom nee dafa dafa am liggéeyam yàqu nee naa ko nag. Ah. dama ca li ngay liggéeyal nga wax leen li lay arrivé. Uh-huh. ba ñu xam ko. Uh-huh. voilà bu boba uh-huh. même bu féké dañ lay dakh sax mais au moins ñu dakh la ci dëgg. parce que am na mais ñay euh ci liggéey boo mënti nek bo ak sant bo bu féké nga toog trois jours liggéey wo mhm. nga am absence trois jours. Mhm. da ngay joxe ay ay ah, explication waaw ah ah, waaw justifié mën na ko wax justifié sa absence mën na ko wax na moom toute façon na dem wax rek bu fekkee dëgg yàlla xam na bu fekkente ne euh, dañ ko dàq mu xam ne fa la liggéeyam waroon yem buñ ko comprendre bàyyi ko mu continuer mu jàngee ci rek. mais Ndiaye kii mais na dem wax. ay kilifaam di ko téye woon. voilà loolu laa ko conseillé. kii li mu wax nii bu demee hôpital ba pare. non kenn du ko ci dàq. kii li mu wax nii kenn wax. kenn du ko ci dàq na wane ay preuve que ni li mu wax dëgg la rek. da leen yóbbu ca kër ga. non mooy bon kër ga. su ma xamee mu yóbbu leen fi moom wax ni tey bu ñu demee hôpital. danañ xam ne kii dañ dañoo dañ ko abusé. mais nag mais nag ma nekk ci li muy liggéey. su ko waxee affaire bi day day day leer de. ah loo ci dolli joxe détail. waaw daa waaw mais donc xaw donc. daf ko war a wax pour que affaire bi leer. en tout cas daal man li ma am. bu daal ku jël taxi. waaw bàyyi mu jox la café wala jox la ndox bu ko naan. waaw yéen taximaan yi client bu dugg jox leen boisson wala bu leen naan. Ah, ah. li ngeen séq mooy mu yóbbu la nga egg nga fay ko ngeen ñaanalante dem. gis nga teranga yi Sénégal nee nañ c'est un pays de la teranga mais teranga ji daa rax léegi. Ah, comme teranga ji daa rax nag na ku nekk yemale sa teraanga ci sa bopp. sa dëgg la de bëgg naa dégg. c'est la même chose que moom gardien moo gardien yi ñoo yem. bàyyi gardien da nga ñëw baan doo fi tudd gardien. non non dama leen non soit nga dem xooli daaw di mu jox la émission spéciale gardien nga fay traité plaider seen cause. déglu ma liy dal li dal kii day dal gardien yi. waaw nga bàyyi ba mu dal leen. <laughs> Ndiaye déglu ma rek. damay ba c'est la même chose dañ koo drogué. <laughs> gardien yi dañ lay fekk nga toog. benn waaye abaa ñëw yor benn mbuus alors nu mu demee sawa sawa ah lii de banaana la fekk dañoo pikiir banaana yi nga lekk ko nelaw ñu dugg fi ngay garder roñ lépp yóbbu. xam nga luy xam nga luy cause bi. waaw booy garder lu ne te joxoo ko lu mu lekk. waaw lu mu gis lekk ko. waaw looloo tax. looloo tax problème di leen yóbbu ñuy garder. waaw nañu leen di jox lekk gu doy gu baax. c'est que li ñi nga xam ne ñoom la ñuy monter seen i kër. Uh-huh. ñoom it nañu xam ne yeewuñu xër ca xar ci buntu kër gi kii garder nit la doomu aadama la. Uh-huh. ñoom li ñuy lekk. Uh-huh. ba koy desal dis tuuri. ñu ci jox gardien muy lekk. c'est que li leen di garde loo. moo dul yoon. mais Ndiaye yow nga ni waa trois jours la def ci fan. trois jours la fa def. cent ah. fois. mais comme xam naa ne dafa doon miir. xam nga miir wax doon moo tax mu ni cent. mais non cent bu doon cent moom après bu xëyee fu ñu koy suul la wax. mu ne moom trois femmes na li dégg mooy. Euh, na benn femme bu doon fëgg naan ko rama ubbil ma. waaw donc xam na ne femme boobu rama la tudd. kër gi nag mënu laax fan la. xamul benn carte moom daal dem nañu bi mu ne damaa xiif ñu jox ko mu lekk la mu lekk uh-huh. ca la nelawaatee ñu sànnee ko fii Yoff Océan ay quatre heures du matin mu yegg këram euh, tëdd nelaw. Mhm. ay onze heures mu ñëw fii. Ndiaye man ak yow ñooy waxtaan. Mhm. salaamaaleykum yaa ngi nii ñetti femmes a ngi nii. Mhm. <laughs> numéro bii numéro 17 la. numéro bii numéro 18 la. li ma lay sant boo ko deful dinaa woote ci ñaari numéro yi. trois femmes ñu ngi sa kanam taxaw. yow bu doon yow Ndiaye ban réaction ngi njëkk am. du ma ko def. doo ko def su ma neexul du ko def. boo ko bu la bu la neexul. waaw du ko def. nañu woo ci numéro bu leen neex. ci numéro bu ñu neex. ayca baat nañ doxal. léeg-léeg da ngay dégg. Hmm. nit naa la xaw ma leen yow nit boromu tur nga boo defee lii dañuy wax lii man leen def leen yàlla xam na. Aba boo nee Mouhamed Ndiaye mii day mandi te yàlla mi ñu sàkk xam na ne Mouhamed xamul nu butéeru sàngara di mer. mais après léegi man ban affaire la may def. en tout cas li war nañ cee bàyyi. c'est que xëy na moom xelam moo toll foofu ak fa muy liggéey en plus aussi ñu ñëw fekk lum bon bon tey bu ko waxoon. ñu fekk ko ci kër xale yu jigéen yooyu dañ koy dóor dóor dañ koy jël dóor ci kaso bi ba fekk ñuy mën a enquête bi. Mhm. xam naa loolu doon bañ. en tout cas en tout cas en plus 30 la am aussi. nañu bàyyi xel ci loolu bu baax daal nañu bàyyi xel ci réew mi suñu réew mi ngi yàqu. ah waaw mbaa ci topp. xamagoo de.